salaamaaleykum téléspectateur RMB TV salaamaaleykum mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyuwaat di leen siyaare di leen présenté émission bu bees tàq muy Kaay Yëngu kay Yëngu émission la bi nga xam ne ni tey jàngkat yi ñoo ko moom ñi nga xam ne tey ñu ngi ci daayira yi di jàng nga xam ne ni tey ñu ci cant yi di jàng kon su ko defee yéen a moom émission bi ñëw leen ngeen woote ci service commercial bi mu ngi noonu su ko defee rek ngeen mën a. daal di bokk ci émission bi waaye nag dinañ dem kër kilifa diine yëpp seeti ki nga xam ne tey moo fay yëngal di fa jàng su ko defee rek ñu daal di koy invité fii ci RMB TV fas yéene waxtaan ak mu jaar-jaaram xool yan clip la def xool performance xool lan moo ko dugal tamit ci li nga xam ne ni tey mooy jàng yi fépp foo xam ne nii nag cant am na fa daayira wala li nga xam ne ni mooy événement religieux mën ngeen contacter. Euh, ndik service commercial bi mooy numéro boobu di daw si suuf yéen yéen a moom émission bi su ko defee rek euh, di woo partenaires yi ngeen ñëw jàpp ci émission bi di leen wax nag ne leen émission la boo xam ne nag tous les vendredis lay daw de midi à 13h incha allah fii ci RMB TV di nuyu ñëpp di ziar ñëpp te di jaajëfal ñëpp jaa ngeen jëf.